ñaar ak ñaar yonent yàlla Ibrahima ak tabaski asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci sunuy njàng ci tawret doon nanu gëstu ci nettali yu neex te am maanaa ci yonent yàlla Ibrahima wante tey agsi nanu ci nettali bi ëpp maanaa ci dundam mooy nettali tabaski bu wóor bi ak li mu tekki ci sunu émission bi weesu jàngoon nanu ni yàlla joxe Ibrahima ak Saara doom ci seen màggat ba amal li leen digoon bu yàgg doom jooju mi ngi tuddoon isaaxa yàlla digoon na ibrahima ne dina jaarale ci askanu isaaxa xeet wu bees wu barkeb yàlla nara jaar jëm ci xeeti àddina yépp gisoon nanu it ay bés gi weesu ni ismaila ak yaayam ajara joge kër ibrahima dem dëkk ci réewu misira noonu isaaxa kese des ca kër ga moom mi juddu ci kaw diggu yàlla amoon na bés na yàlla wax ibrahima mu def lenn loo xam ne lu doy waar la te metti lool nanu dellu si léegi ci tawret téereb njalbeen ga dinañu jàng tey ci saar ñaar fukk ak ñaar mbind mi nee na amoon na bés yàlla doon nattu ibrahima mu ne ko ibrahima mu tontu ne maa ngi yàlla ne ko jëlal sa doom isaaxa jenn ji nga am te nga bëgg ko nga dem ca réewu morisa ca tund wa ma lay wax joxe ko fa mu nekk sarax suñuy lakk lan lu yàlla doon wax ibrahima noonu mu ngi ko doon sant mu jël doomam ji mu bëgg yóbbu ko ci tund wu sore rendi ko fa jébbale ko ni sarax suñuy lakk naka la loolu mënoon ame ibrahima mi xaaroon te muñ ñaar fukki at ak juróom sooga am doom ji ko yàlla digoon léegi yàllaa ngi koy wax mu saraxe ko ibrahima nag naka la wuye woon yàlla ndax werante nag waxi yàlla ndax li mu jafe nangu déglu leen tontu mbind mi noonu ibrahima jóg suba teel takk mbaamam ànd ak ñaari surgaam ak doomam isaaxa mu xar matt ma ngir sarax suñuy lakk daldi jog jëm fako yàlla wax ca ñetteelu fan ba ibrahima daldi xool seen bërëb ba fu sore diirub ñetti fan nag ibrahima ak doomam ak ñaari surgaya di dox di dox di dox jëm ca tund wa yàlla wax xoolu ibrahima fees dell bi muy jege bu tiitaange ba mu waroon a rende doomam ji bëgg te lakk ko waaw nun ñiy jàng nettali bi tey xam nanu ne yàlla dafa doon nattu ibrahima rek ngir wone fu ngëmam toll wante ibrahima moom xamul woon lool li ko yàlla santoon natt bu tàng te metti la woon léegi nanu jàng jëm kanam mbind mi nee na ca ñetteelu fan ba Ibrahima daldi xool seen bërëb ba fu sore mu ne surga ya toog leen fii ak mbaam mi manak waxambaane wi nu dem ba fële màggal yàlla te dellusi ci yéen Ibrahima jël matt ma ngir sarax sa jox ko Isaaxa doomam mu gàddu ko moom mu yor ci loxoom safara sa ak paaka ba noonu ñu ànd ñoom ñaar bi ñu yéeg tund wa Isaaxa ne Ibrahima baayam baay mu tontu ko waaw sama doom isaaxa ne ko safara saa ngi matt maa ngi waaye ana mbote mi ngir sarax si ibrahima ne ko sama doom yàlla dina indi moom ci boppam mbote mi ngir sarax si noonu ñu ànd ñoom ñaar ba ñu eggee fa ko yàlla wax ibrahima dajale ay doj ngir rendikaayu sarax mu teg ca matt ma daldi yeew isaaxa doomam teg ko ci kaw matt ma ca rendikaay ba ibrahima tàllal loxoom daldi jël paaka ba ngir rendi doomam waaye malaakam borom bi toll ci asamaan woo ko ne ko ibrahima mu tontu ko maa ngi malaaka ma ne ko bul jëmale sa loxo ci waxambaane wi bu ko def dara ndaxte léegi xam naa ne ragal nga yàlla ci li nga ma gàntulul sa jenn doom ji nga am ba mu ko defee ibrahima gestu gis ci gannaawam kuuyum xar mu béjjën ya lonk ci as ngarab ibrahima dem daldi jël kuuy joxe ko mu wuutu doomam nekk sarax suñuy lakk noonu ibrahima tudde béréb boobu yehova yiire muy tekki borom bi dina ko indi moo tax ñuy wax ba tey ca tundu borom bi dina ko indi nettali bi bu am maanaa la te mata leeral li nu bëgg a tekki tey mooy lii nettalib tabaski ñetti wàll wàllu historique wàllu symbolique ak wàllu prophétique maanaam ci nettali bi des ci dégg li xewoon li nettali tabaski di misaal ak ni mu yëgle li naroon a xewi gis na nu tey ni yàlla nattoo woon mu ibrahima te musal doomam ci dee jaare ko ci xar mi mu rendi woon loolu lépp xewoon na ci gox bi yerusalem nekk tey am na daanaka ñeenti junni at mooy wàllu historique bi ci nettalib tabaski ci jot gi nu dese tey danu bëgg waxtaan ci wàllu symbolique bi ak wàllu prophétique bi jàng nanu ni yàlla ci njubteem daanewoon doomu ibrahima ngir mu dee te gannaaw loolu ni ko yàlla ci yoom musale ci dee kàddug yàlla dafa wax ne nun ñépp mel ni doomu ibrahima jooju ay bàkkaarkat lanu te yeyoo àtteb yàlla waaye yàlla sopp nanu ba wallu sinu indil nu pexe mu mën a mucce lan mooy pexe mucc moomu nettali tabaski dafa nuy won ne yoonu mucc wi yàlla tëral mooy yoonu sarax su mat sëkk si ci nettalib tey bi gis nanu ni yàlla indee xar ngir mu deewal doomu ibrahima béjjëni xarmaa nga lonk woon ci as ngarab noonu deru xarma xotteekuwul su xarma amoon benn sikk nag dootul mën wuutu doomu ibrahima ci kaw rendikaay ba waaye sarax si yàlla indi woon xar mu mat sëkk la woon ci sunu njàng ci tawret ci saar yu jëkk yi jàngoon nanu ci mbirum yoonu mucc wi yàlla ci boppam tëraloon ndax man ngeen ko fàttaliku gannaaw ba aadama ak awa bàkkaaree yàlla dafa dogaloon ne ndegam peyu bàkkaar mooy dee mbaalug bàkkaar du am bu deret tuuruwul kon képp ku bëggoon ñu baal ko ay bàkkaaram waroon na jël mala mu sikkul rendi ko jébbal ko yàlla ni sarax suñuy lakk noonu la mala ma amul genn tooñ dee wuutu tooñkat ba ci kaw loolu rekk la yàlla mënoon a baale doomi aadama seeni bàkkaar te ba tey dëkk ci njubteem wante leneen li ngeen war a xam mooy lii mbind mi wax na ne saraxi mala yi dañu doon misaal xéewal yi waroon a ñëw takkandeer la ci yëf yu dëggu yi waaye du ñoom ci seen bopp ndaxte deretu mala yi mënuñu dindi bàkkaar yi deretu mala mënula nekk peyug bàkkaaru nit ba faaw ndaxte maanaawu mala ak bu nit yamul naka noonu gis nanu ne xar ma wuutu woon doomu ibrahima ca rendikaay ba takkandeer la woon ci beneen sarax su gën a màgg te gën mat kàddug yàlla dafay wone ne xar ma dee woon ci palaasu doomu ibrahima dafa doon misaal ramukat bu sell bi waroon a gane ci àddina deewal bàkkaarkat yépp ngir yàlla mën a baal képp ku ko gëm ci tënk loolu mooy li xarum tabaski di misaal takkandeer la ci musalkat bi yàlla dige woon yónni ko ci àddina si ngir musal bàkkaarkat yi ci àtteem bu jub bi ndax fàttaliku ngeen li Ibrahima waxoon doomam ba ñu yéeg tund wa mu ne ko yàlla dina indi moom ci boppam mbote mi ngir sarax si ndax fàttaliku ngeen di Ibrahima yëgle woon gannaaw ba mu rendee xar ma lakk ko ci palaasu doomam dafa tudde bërëb bu sarax boobu borom bi dina ko indi te yonent yàlla Musaa mi bind tawret teg ca ne moo tax ñuy wax ba tey ci tundu borom bi dina ko indi lu waraloon loolu lu taxoon yonent yàlla Ibrahima yëgle ne borom bi dina ko indi te fekk yàlla indi woon xarma ba noppi lu tax ibrahima waxul woon ne santal yàlla indi na sarax si ah mbokk yi laaj bu am maanaa ngi noonu ndaxte tontu li dafa ëmb xibaar bu baaxu kàdduk yàlla te faaw ku nekk ci nun dégg ko te ko lu taxoon nag ibrahima wax boroom bi dina ko indi lii moo tax ibrahima dafa doon yëgle li naroon a xewi ca tund yooya fa xarma wuutoo woon doomam ca rendikaay ba ci tënk li ibrahima doon yëgle mooy maa ngi sant yàlla ndaxte indil na ma xar mu wuutu sama doom ci rendikaay bi wante maa ngi leen di wax ne benn bés ci tund wii yàlla dina indi beneen sarax su gën saraxu xar mi musal sama doom ci paaka bi ak safara si tey ji waaw sarax si yàlla wara indi dina am doole ngir musal doom aadama ci dee faw ci safara su dul fay mukk yàlla dina wàcce ramukat bu sell mu deeni ni sarax moom mi amul tooñ ngir ñi tooñ loolu kon mooy xibaar bu baax bi Ibrahima doon yëgle bi mu naan yàlla dina indi moom ci boppam mbote mi ngir sarax si kon bala nuy àggale nettalib tabaski na ku nekk ci nun xam ne daanaka ñaari junni at gannaaw ba Ibrahima yëgle leen yàlla dina indil bàkkaarkat yi sarax su mat sëkk si yàlla amal na li Ibrahima yéene woon mënuñu ci sore tey wante yéen ñi xam nettali rammukat bi xam ngeen ni mu juddoo ci janq bi askanoo ci Ibrahima ak Isaaxa ni ko yàlla diggee woon tembe moom mi naroon deewal bàkkaarkat yi amuloon bàyyi ci kaw suuf ci asamaan la jóge te naka noonu moom donnul bàkkaar bi nekkoon ci sunu maam aadama amul woon bàkkaar amul sikk looloo tax mu yeyoo dee ni sarax wuutu tooñkat yi turu musalkat boobu nag moo di yéesu turu yéesu mu ngi tekki yàllaay musal yeesu moomu nag am na ñeneen ñu koy woowe isaa amoon na benn yonent bu tudd yax ya yàlla yónni ko ngir mu xàll yoonu musalkatu àddina si mu am bés yaxya gis yéesu muy ñëw ci moom mu ne xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nara rey ngir dindi bàkkaaru àddina si lu taxoon yonent yàlla yax yaxya wax ne yéesu mooy mbotem yàlla ndaxte tuur deretam ni sarax suy dindi bàkkaara taxoon yeesu juddu ni xarma deewal doomu ibrahima ramukat bi ñëw na ngir deewal ñun ñépp naka noonu mbind bi day nettali ni yéesu jébbale boppam ay noonam ñu daaj ko ca bant ba te fañu ko daajoon mooy tund wa xarma wuutoo woon doomu ibrahima noonu la ramukat bi yàlla indi woon amale misaalu xarum tabaski looloo tax laata ramukat bi dee mu wax ak baat bu dëgër naan lépp mat na te yàlla firndeel na matuk saraxu ramukat bi ci limu ko dekkal ca néew ya ca ñetteelu fan ba ci lu wóor ramukat bi jóge asamaan mooy sarax su mat te mujj te ibrahima doon ko yëgle bu yàgg ba mu ne yàlla dina indi moom ci boppam mbote mi ngir sarax si noonu gis ngeen ne yeesu mi tuuroon deretam ca tund wa ibrahima rende woon xarma yéesu moomu mooy ki amal wàlli sembolik ak porofetik ci nettalib tabaski kon nag ci jamonoy tey ji koo mën a doon ak foo mën a nekk yàlla santaane na nga tub say bàkkaar te wekk sa yaakaar jépp ci sarax su mat si mu indi ndaxte mbind mi nee na gàddu na moom ci boppam sunuy bàkkaar ca bant bañu ko daajoon ngir nu tàggook bàkkaar soobu ci dund gu jub ndax ay gaañu gaañoom may nañu ak wér tey gis nanu ne doomu ibrahima moom nangu woon na sarax si ko yàlla indil yow nag ndax nangu nga sarax su mat sëkk ci la yàlla indil nu ngi leen di gërëm ci déglu bi su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey ngeen bindunu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li ramukat bi mujjoon a yéene ca bant ba bi mu nee lépp mat na